asalaamaaleykum mbokki auditeur de la 97.5 ak mbokki téléspectateur de Rewmi TV daleen nag jàmm ci seen émission Rewmi People comme chaque samedi ñu andil leen benn danan benn artiste tey ñu am mbégte di dalal Mamadou Moustapha Gning ñu gën ko xamee ci Fata El Presidente di rappeur artiste compositeur producteur bu ñëpp ràññee ñu bàyyi ko nag mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi. alors Fata ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay maa ngi nuyu waa réew mi mi euh, je réew mi TV pour ñi ñuy seetaan ak réew mi FM pour ñi ñuy déglu ak euh, réew mi pour ceux qui vont lire. alors Fata ñu gën la xamee ci. Fata El Presidente. Euh, d'où vient ce surnom lan moo la inspiré. loolu c'était en 2005 quand j'avais besoin de sortir un nouveau album. Euh, mhm. mon nouveau album solo donc je, je savais que déjà euh, ñu ngi ma doon woowee Fata bu CBV et que loolu yëpp dafa ma doon rattaché si ci sama histoire ak CBV donc à un moment donné comme je sortais en premier solo tuddee ko. l'Afrique, retour en Afrique, il me fallait un peu actualiser ce, ce tour. Quoi. Donc, moi, je suis Fatah El Presidente. Alors, du coup, comme Fatah, donne-moi ce, ce, vrai nom à l'état civil. À l'état civil, c'est Mamadou Moustapha Ning. Mamadou Moustapha Ning. Mm -hmm. D'accord. Alors, euh, Fatah, euh, Nugisne, ça fait un bon moment. Euh, Dégoutune, que devient Fatah bon déggatu la bon parce que léegi tout le monde xam nga artiste bu nekk média nga ko donc euh, ñi may suivre sama Instagram di ma suivre sama Facebook. Mhm. di ma suivre ci sama <coughs> en tout cas ci sama réseaux sociaux yëpp. ils savent que je suis j'ai depuis presque six six dix dernières années yi après avoir sorti mon album euh, depuis 2013. Mm -hmm. j'ai sorti deux trois projets yoo xamante ni c'est sorti en en digital. d'accord lu mel ni United un projet que j'ai fait avec un américain qui s'appelle Bicam si mhm. mu ngi disponible sur iTunes d'ailleurs def naa ci vidéo mu ngi disponible si internet bi aussi après j'ai fait un autre projet bu ma tuddaloon Mister International boo xam ne dama ko dédié woon spécialement à Pacotille mhm. Pacotille ndem si yàlla ji yàlla na ko yàlla yërëm après bien après il y a pas longtemps ça fait maintenant un an et demi j'ai sorti un EP bu ma tuddee. mais e en réalité maa ngi ci maa ngi ko def def naa ci sama morceau phare boo xamante ne sama doom laa ko tuddee Modern trois projets yoo xamante ne bu ci nekk am na cinq six tracks génn na et puis j'ai fait la promotion surtout dans si samay médias yi quoi. ok alors ñu gis instant bi nous sommes dans euh, euh, un contexte un peu particulier à savoir. Euh, le coronavirus ñu gis ne que y avait pas mal de rapports yoo xam ne dañ leen invité woon au palais dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 mhm. mais euh, gisuñu la fa woon lan moo waral loolu euh, invité wuñu la woon wala euh, tu n'étais pas au courant bon il faut dire que du du du fépp mën a nekk et comme bu virus ñëwee bu mel noonu le plus important n'est pas que d'aller voir le président c'est de quand même impacter et de de communiquer pour ñi ñi nga xamante ni dañ lay déglu di la suivre ñu mën a xam ne euh, au moins def nga sa contribution pour moi c'était le plus le important et d'ailleurs avec suñu label Taf Label on a dû produire le un des des meilleurs morceaux en tout cas du du du, du virus boo xamante ni ñun ñoo ko produire boo xamante ni il y a eu ay Titi ay Clayton Hamilton Awadi Bakhaw ainsi de suite ñun ñoo ko def on a même fait le remix de luxe de de ce morceau. Mm-hmm. Covid. Euh, moo xamante ni ci la woo ay maire Kiné Lam ay euh, Ami Collé Dieng euh, mm-hmm. ainsi de suite donc am na deux versions yoo xamante au moins contribuer nañ ko si quoi donc l'idéal n'était pas le plus important n'était pas d'être reçu mais vraiment de montrer aux Sénégalais de faire attention et de rester chez eux D'accord. Euh, parlons toujours du contexte coronavirus. Mm-hmm. Est-ce que pandémie bi impacté wu tuuti ci seen liggéey. bon bien bien sûr oui comme tout le monde ah artiste bu fekkee hmm, woyatul mënul dajale ay nit euh, day impacté si liggéeyam euh, d'autant plus que aussi du dañu nekk ci dëkk boo xam ne ni Sénégal non seulement les gens ils sont ils n'ont pas eu l'habitude de d'acheter en digital peut-être bu dee dëkk yu développé du son lu leen sonal mais Sénégal c'est pas le cas donc du coup artistes yi boo jaayul ou performe defoo dara euh, c'est c'est relou maintenant en ce qui me concerne c'est la même période que j'ai pu quand même investir dans le pour créer de nouveaux studios qui me permettront avec Taf Label qui est un label qui existe depuis très longtemps euh, si man si si samay activités yëpp ñoom ñoo et ça m'a permis de quand même de mettre le, le label sur pied pour travailler en continu avec les télévisions d'accord euh, Fata ñu gis c'est le grand retour de compétition hip-hop fii nii loo ci mën a wax. oui en fait c'est un engouement qui continue parce que euh, le fait que j'ai recommencé à travailler dans l'audiovisuel et donc euh, il me fallait quand même avoir du contenu j'ai recommencé à faire des émissions yu mel ni high level yu ma commencé ba pare euh, d'autres émissions apéro ay hip hop generation ñoom leen depuis et donc hip hop feeling aussi nekk une marque déposée qui quand même était très connu et respecté dans le monde hip-hop et même au-delà. Et donc pour moi, c'était important de revenir et de joxaat aussi benn souffle euh, hip-hop bi pour que paysage euh, euh, urbain bi gën a embelliru quoi parce que tey bëri na ay stars yoo xam ne dañuy génn de partout euh, ñu ci bëri internet bi def mais am a des stars brutes yoo xamante ne ont été faits par hip-hop feeling et aujourd'hui quand même ñu ngi une partie intégrante du mouvement hip-hop aujourd'hui je pense que c'est une émission qui doit exister et qui doit être soutenue. D'accord. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il est euh, soutenu comme vous voudrez qu'il le soit Voilà, on est en phase de, de, de, de lancement, il faut dire. Mm, on, a, on de euh, de commencer fort, malgré le Covid, on a euh, quand même commencé et compétition est de nous. on, est, on grand ouvert, à main euh, Euh, des partenaires pour quand même accompagner le, projet parce que quoi qu'on dise, projet populaire et que qu'attendent tout le grand public. D'accord, et ça se passe bien Ça se passe très bien, alhamdoulilah. On a huit personnes qui ont voulu compétir pour y décembre. Décembre, nous avons finale le MAC. Mais en vérité, initialement, on était parti pour cette année, pour cette édition, de faire une émission interrégionale maintenant. Parce que Hip Hop Feeling, on a des petits sous-régions. Mais maintenant, si version bi ñu jëm mooy version boo xamante ni c'est des régions qui se s'organisent qui se forment en termes de en, en équipe de cinq et donc euh, chaque région di dem ci beneen région région bu nekk di compétir beneen région ba ñu gis ban région moom moo gën a présente en tout cas en hip hop ci hip hop feeling donc euh, moo waral nag Covid moo waral ñu ñu def une version légère bu compacte de huit compétiteurs qui quand même a commencé et qu'on compte faire la finale en décembre allah D'accord. Alors, euh, Fatah à l'époque euh, pour votre euh, musique euh, mélangée de rap et de mbalax aujourd'hui ñu gis ne c'est un peu la tendance dans le hip-hop sénégalais léegi yow tey loo ciy wax vous devez rire sous cap wala c'est comment. bon il faut dire que ñun on est passionné ah nekk ñu di jéem a jël flambeau ne sax ñun ñoo ko ñun ñoo ko def y en a qui même change de débat pour croire que c'est je me le proclame alors que no c'est que ça existait déjà ay PBS ay Daara J ils ont été toujours ils ont misé sur un hip-hop ce qui nous ressemble sauf que y a eu un air bu ñëwoon boo xamante ni moom la Rafa Dior bi woon qui a interdit de faire ça mais donc moi en tout cas j'étais là je me suis opposé à tout prix pour que ñu ñu dëggal ni rap de waroon ñu roog suñu yëf aujourd'hui la génération elle est beaucoup plus indépendante donc ñoom ñoo koy def di ko dëggal te pour man c'est l'intérêt de, de la musique sauf que euh, pendant ce temps aussi le rap moderne le rap en tout cas américain évolue dafa andi yeneen style yu mel ni ay drill ay ay ay ay ay trap il faudrait pas en même temps aussi di dugaat ci même piège yi quoi il faut quand même rester original et local euh, pour que qu'on ait une musique qui nous ressemble on parle pas de Naija wala whatever mais on a une musique qui doit nous ressembler et qu'on devrait défendre partout où on sera alors yaa ngi ne euh, comme quoi on devrait avoir euh, une musique boo xam ne elle nous ressemble léegi euh, par rapport au rap sénégalais est-ce que on a euh, ce rap sénégalais notre vraie identité. Euh, jusqu'ici tu le sens de par ci et par là parce que da ngay sentir benn rappeur boo xamante ni il est très connu ku mënti doon. d'accord d'habitude li koy gën a may succès mooy son bi muy def bu original moom moo ko ëpp may succès ci Sénégal pour que en tout cas qu'il touche toutes les tranches d'âge et loolu boo rek signal la pour nga xam ne tu dois ressembler à ton pays à tu dois parler à ton peuple mm -hmm. maintenant tous ceux qui aujourd'hui ont été influencés par les Américains de par les vidéos de par tout ce qui se passe dans les médias aujourd'hui euh, ñoom ñoo war a nangu xeex boobu ñu continuer ko xam ne ils doivent ressembler à des Sénégalais ils doivent de par les lyrics de par la musique ils doivent parler aux Sénégalais et donc je pense que un à un ñu ngi nuroog loolu mais de par aussi la tendance gis ne et nourou nourou le américain et les gens ils ont toujours envie de le faire parce que les américains ont envahi le monde et man nag pour man euh, tëb juddu def carrière mu original moo ëpp intérêt dem américain américain ba benn instant nga war a dellu si di original et je pense que piège boobu je l'évite pour toute la génération actuelle e en a qui le font un à un mais il faut que mu nekk un courant parce que musique ci àdduna courant de courant musicaux yi dafay exister ci dëkk yëpp aux États-Unis le le hip hop new-yorkais moo ko dominé woon pendant un moment après ngay commencé di dégg ay down south après ngay dégg west west side donc état bu nekk di am doole parce que dafa àndaale courant boo xamante ni tout tout tout tout tout ñi fa dëkk ñëpp loolu la ñuy wane donc ñun Sénégal on a besoin de montrer une musique qui nous ressemble qui nous parle loolu mooy courant donc si toutefois on saute pas une dizaine d'années encore parce que courant yi ñu ngi si toutefois suñu génération bi dañu dugg ci piège américain di def le hip-hop comme les américains on sera obligé d'attendre encore dix ans. alors quels sont les défauts et les qualités du rap sénégalais. bon les defo les défauts il faut dire que mooy mooy li ñuy li ñuy li ñuy wax rek dama toll dañuy toll ci foo xamante ni pour man le hip-hop a besoin de de de de beaucoup de de de dans le pays et de moins de stigmatisation et de. ñun ñu représenté ko tamit en image c' est important parce que tey euh, loo toojul du kawe kooku du jaaw di da koy faral di wax et c' est important nañ ko jëmmal fësal ko wàñña wàññi moins de de frustration et de clash yi nga xamante ni bien que ça ça fait partie du peuple day mais aussi on on c' est avec le clash qu'on se laisse des yoo xamante ni moom la journalistes yi nga xamante ni sont pas trop intéressés par le hip-hop di utiliser pour dire que le hip-hop ne se pas bien donc je pense que tey ñun acteurs yi ñoo ñu ay kilifa lañu ay borom kër lañu ñu yar njaboot di yor nekk ay chef d'entreprise euh, te jii ñu dañu ñëw pour support loolu te on a besoin de montrer en fait la face la belle face du hip-hop donc euh, loolu rek la ñuy ñaan mu bañ a nekk euh, loo xamante ni c'est fortuit parce que si su fukki di gas fukki di suul du kan day yàgg rek et donc c' est une invitation à toute la génération pour ñu comprendre dañu toll si eeru fësal lu rafet parce que askan bi ñu nekk nii Sénégal déjà hip hop bi dafa dañu am problème mu adapté ko encore plus ba bon bu ci ànd ak ay yenn wax yu ñaaw day gën a jafe donc je que c' est un c' est c' est un mal pour un bien. Un mal pour un bien. ok alors euh, Tafa euh, en tant qu'ancien nan ngay juger euh, jeune génération de hip hop. donc borom jugement dama leen di encourager parce que quand même euh, ku nekk day def jéego toutes les générations font partie de l'évolution du du hip euh, li ma leen di ñaax mooy ñu gën a fësal li ñuy def tóoj ko mu gën a kawe et puis di di rester moins moins moins vulgaire dans la mesure où on est dans un pays où quand même euh, xam nga ñun on est quand même coincé. on a nos réalités on a des réalités qui font que mënuñu musawaane ba mu mel ni am parce base yoo xamante ni mënuñ ko tëb léegi nag tu as beau évoluer tu as beau comprendre ou écouter les lyrics occidentaux mais tu resteras toujours sénégalais et quand même autant le revendiquer de par ta et de par ta conception que de que d'essayer d'être autre autre chose ñun c'est dommage comme si c'est c'est quand même man pour avantage la mooy nekk ci dëkk boo xamante ni dañu rester toujours di ñafe pour am ay euh, ay valeurs yu ñuy jéem a maintenir et je pense que loolu ku ñëwul yokk si waru ko yàq donc euh, pour moi loolu laay loolu laay souhaité génération bi qui soit beaucoup plus euh, ouvert beaucoup plus euh, euh, open mind but toujours cultivé quoi et toujours authentique. D'accord, c'est noté. Alors euh, le hip-hop est considéré comme euh, contre-pouvoir. Vous avez refusé de descendre dans la rue pour manifester. Euh, lan moo waral choix boobu. bon parce que non je pense que ñun hip hop bi waruñu sax jël position garder euh, cette position de revendication pour pour rek politique quoi on a une revendication socio-culturelle parce que ñun dañu nekk ci euh, charte yu bëri yoo xamante ni daf ñu war warloo ak askan wi quoi donc ñun waruñu sax jël profilu. Euh, casse rek pour euh, politique yi quoi donc euh, euh, li ñuy casser pour politique bi la ñuy war a casser pour la bonne tenue de, du citoyen sénégalais le respect de de de de de la constitution et ainsi de suite citoyen bi ñu war a dundee ñu war a comporter woo ñu ñoom ñun c'est comme si dañu war a miroir lañ ci société bi. stigmatisation rappeurs yi ñu war a jël hip hop kese yóbbu ko ci revendication il y a de l'éducation dans le hip hop am na entertainment am na edutainment am na am na storytelling y en a qui prennent le hip hop que pour raconter des histoires anciennes et moo d'où la raison où euh, l'initiation de du slam euh, am na ñu jël hip hop pour edutainment ñoom dañuy dem nañ ba tey ñu ngi jàngale ci université yi ci hip hop euh, donc c'est des formes qui font que le hip hop de manière générale une culture léegi nag Sénégal ñi ñu jàppee woon ñi ñu ci bëri ñooy les vrais et les vrais engagés du hip hop c'est ceux qui tirent sur l'État et c'est parce que y a pas que l'État pour faire fonctionner un peuple pour man euh, y a il faut un tout donc euh, euh, ñii bu ñu nekkee si lii na ñii nekk si lii te ku nekk di respecter moromam si li mu nekk c'est important. d'accord c'est quoi ce tout pour faire fonctionner mooy mooy mooy sans l'État sans l'État l'État est là normalement pour diriger wala teg ay politique yoo xamante ni dafay yombalal askan wi ci ci li ñuy def mais askan bi itam ils ont euh, dañuy am motive dañu war a motivation bi leen di jógloo bañ xaar ak état donc j'ai toujours été contre ceux qui disent que sans l'État rien ne peut marcher donc pour man ñun ñëpp ay leaders lañ soo dañu war a euh, propulser euh, le leadership ba nga xamante ni nit ñi di seetaan dañuy war a xam ne ñu on est de rien et on n'a jamais été soutenu par l'État pour en quoi qu'il en, qu en soit et on s'est donné la force de par le peuple ou même de par nos idées pour quand même di di jéem a ñafe di survivre jusqu'à aujourd'hui et si je le peux ça veut dire toi tu peux le faire donc euh, euh, du rek état mooy taxaw pour rek pour askan wi mën a mën a génn ci dara mais l'état il est quand même il a une obligation de créer des politiques et de, de, de mettre des politiques en place afin de faciliter la vie des citoyens donc je pense que euh, il faut pas qu'on se perde de vision nañu jéem a yëkkati suñu bopp galvaniser suñu bopp pour mën a bokk ci ñi nga xamante ne dañuy teg pierre à l'édifice. en Akon City. Mm -hmm. euh, le projet il attire déjà des critiques euh, lan moo ci se sa xalaat par rapport à ça. man pour man euh, euh, j'aimerais bien sax di critique bëgguma taxaw taxawaay critique mais man pour man Akon. Euh, su dee bëgg na Sénégal li mu war a njëkk def moo doon soutenir de par li ko permettre mu am mu réussir parce que quand même il faut pas oublier euh, même s'il avait du talent euh, américains yi dañu nekkoon bi ay kon di génn dafa amoon benn dañu bëggoon di dund ay fraîcheur ci musique bi et donc Akon a dû utiliser les flags de la du drapeau séné du, du Sénégal le drapeau pour que di wane ne dafa authentique sénégalais du wane ne moom sénégalais la loolu la doon revendiquer et donc loolu ñun dafa doon refléter artistiquement de par son succès dafa euh, refléter si suñu musique et alors feeñul benn yoon feeñul benn yoon ci taxawaayam ci suñu musique donc bëggum réewam euh, daf ñuy déjà jaaxal ci jàppale ñi nga xamante ni à l'époque ñu mel ni Daara J ay PBS ay Déggati bi nga xamante ni nee na moo ko inspiré euh, il a jamais donné de main il a jamais he never lift up this nigga so leneen la lu dul love loolu il faut quand même l'accepter d'abord que ne euh, su dee dafa dafay dafay proclamer dafay jéem a xëcc citizen wala loo xamante ni dafa wane ni euh, sénégalais la dëgg-dëgg loolu taxawul même bu fekkee il a dû prendre des prétextes linguistiques par rapport à ce qui se passe autre part au Nigéria wala et c' un faux débat c'est-à-dire adduna bi c' est pas pour rien que les Salif Keita des autres artistes ont dû avoir du succès sans sans parler l'anglais forcément et man c' est dans ce cas mais maintenant quand il s'agit Euh, dans un pays. e et, euh, il faut quand même avoir le, le, le culot de faire des parler des des tenants et les aboutissants réew mi ñu nekk du dëkk boo xamante ni mooy li may ça revient à ce que je dis euh, ñun en tant qu'artiste on sait qu'il y a plein de limites par rapport à nos non ce qu'on fait et ce qu'on ce qu'on voudrait être parce que tey artiste adduna bi ñëpp xam nañ ni ku bëggoon tekki suba ci musique il va falloir être très vulgaire virulente en vidéo il faut être très il faut toucher là où il ne faut pas toucher d'ailleurs même si ñi di def série yi au Sénégal da ngay gis ni il commence à toucher ce qu'il ne faut pas toucher mooy di dugg si xam nga un contexte social qui quand même n'est jamais si les gens le vivent dans le pays et donc euh, il faut arriver à un stade où il faut savoir dire non sinon suñu doom yi di ñëw du ñu amati repère ñun ñu am ñu chance am éducation yu mel ni euh, suñu papa yi teg jox nañu ko mais ñun est-ce am nañu après l'attitude di ko yóbbu si suñu ay doom euh, on se dira pour créer une boo xamante ni li fiy nar di ñëw même ci monétisation bi ci xaalis bi dëkk bi dafay nekk une ville rek bu ñu jël teg ci benn réew. muy doxee ci xaalisam di doxee ci seen esprit mais non attends Touba mi ngi nii à côté c'est un peu dans cet esprit mais quand dans la même dynamique. d'une ville religieuse. On n'est pas dans un pays religieux, on est dans, une pays, dans un pays laïque, mais quand même, Touba joue un rôle fond, profondément euh, religieux. Et donc, euh, euh, quand je vois il n'y a pas longtemps qu'on s'interdit, ñu jàpp ay mbir yu bëri yoo xamante ni dëkku islam yu mag yi sax kenn amuñu pas-pasu di di tere loolu da ngay xam ni dañu ils sont dévoués à à cette si seen ay taxawaay te loolu mooy Sénégal nag foo laal nag foo dem. donc jël benn dëkk nag dugg ko dugal ko ci réew muy andi loo xamante ni yow munoo ko maîtriser kooku ñun j'ai entendu quelqu'un qui lui demande d'aller voir les chefs religieux ba ñu jox ko si joxe ci seen point d'avis seen seen seen seen seen avis et c'est important euh, c'est pas du iñaan du dara mais euh, toutes ces villes modernes là existent dans d'autres pays et que ñu ngi koy xool di nga xam euh, ñëw rek ci réew parce que da nga ni dafa pare liñ ci sénégalais di espérer sax ne dina liggéeyloo suñu expertise suñu dinañ fi bàyyi expertise du loolu ñoom dañuy ñëw ànd ak ñi koy liggéey te amuñu benn contrat bu leen di permettre ñu bàyyi fi seen extra expertise ba ci seen ay taxes yu bëri dañ leen ko exonérer ba nga xamante ni euh, après il est où l'intérêt de d'avoir une nouvelle ville dans un pays où quand même sont quand même toujours ñu ngi bàyyi xel ci seen ay culture ak seen ay valeurs I don't I don't D'accord, donc si je comprends bien, Ecom City, ce pas le, bon projet. Non, il y en a d'autres qui sont encore beaucoup plus importants. Et pour lui, en, en ce qui lui concerne en tant qu'artiste, eh, il devrait commencer à convaincre artistiquement le peuple sénégalais ci ci taxawaay bu mu leen mën a joxe loxo balaa wax waxu dëkk ça c'est typiquement un et ça eh, it's only money and it's money money thing nañu culturellement li américains yi jàppee xaalis tâche à ce que même les valeurs soient bafoué mais ñun on est des sénégalais ah. am na détails yu ndaw yoo xamante ni on y tient tient compte damay nekk Amérique lu bëri di xam li américains yi ni leen mën a jaral ak réussir dans la vie mais après si tu soo amee culture wala nga am yar foo foo foo jógee am na loo xam ne da ngeen leen koy mën a bàyyeel nga dese ak yow li nga mën ak li nga am. alors Fata yow tey soo nekkoon à la place de Akon ban façon projet ngay andi ak si tu devais changer quelque chose lan lay doon. Euh, man man su ma su ma nekkoon place su Akon euh, et d'ailleurs je me demande ndax réel réellement dans le fond soxla naa bëgg naa nekk dans à la place de Akon ça veut dire côté musique côté musique quoi parce que pareil y a plein de choses qui m'animent qui font que euh, fi musique bi li ma si defar as néew jàppale yu bëri yaatal pour que booy yu bëri am ci yoon la yoon boo xamante ne day ànd ak équilibre aussi xam nga emporté wu ma trop yóbbu ma fu yéemee par rapport ak sama vie donc. su ma amoon teraanga daal xam naa ne euh, dinaa jéem a ñafe ba jàppale ñi nga xamante ni euh, tane naa leen wala boog ñi nga xamante ni soxla nañ ko bu baax mooy Sénégal je le vois toujours comme un pays très pauvre très pauvre donc gisuma fi nit ku war a jaayante alal nit ku war a jaay teraanga parce que dañu li may sa jàpp xel sama philosophie mooy ku ñu dégg ni Sénégal milliardaire nga rek bu ñu xoolee ci sa famille bu jege rek am na kuy souffrir sa tante wala sa bàjjan ku la jege trop du milliardaire donc fii pour nga waxu dynastie ku am xaalis réew mi mooy koo xamante ni bu jegee mbokkam bu gëstu rek amul fi métti quoi te lu jafe la ci réew mi parce que ñëpp ils sonti tous ñun ñëpp ay mbokk lañ donc réew mu boo nekk nag bu réew mu di sooxe ba xamante ni fait partie des vingt sept pays le plus pauvres dans le monde am fi yenn mën yi sax gis ba di ko dundee xam loolu loolu la. Euh, pour man risque la il faut vivre il faut bien vivre il faut nga bañ a torox lu certes da ngay bëgg lu baax mais boo gëstoo tuuti am ñu soxla ndimbal ci réew mi ñu nekk parce que réew mi nit ñu sonn lañ euh, wane sax ni mën nga dara sax mën dama ko ragal parce que euh, àdduna dafa doy waar da ngay soxla ni lañ dëkk bi da nga naan dañ naan diw daanu na sax fekk mosul taxaw donc man gëw ay ku am gëw ma loolu ñi yàlla jox teraanga nañ ko jox jaam kon suba mu jeex c'est ça. ok léegi ñu jàll ci dernière question alors euh, Fata bu ñu ñëwee ñu gis ne que dañu ñu accueillir ak benn t-shirt boo xam ne c'était marqué euh, Taf Label donc ñu bëgg xam Fata ci lan nga nekk lan mooy euh, Taf Label lan mooy quels sont tes projets. bon Taf Label mooy mooy label bi nga xamante depuis ans. sama li may def yëpp artistiquement moom moo ko doon xeet même bu fekkoon on n'avait pas sur les pieds sur terre maintenant si Covid bi j'ai dû prendre encore du temps parce que lu ci ëpp daaw ma fi nekk tamit maa ngi gën a nekk États-Unis entre États-Unis ak Paris ci Covid bi toog naa fi au moins six sept mois il fallait faire quelque chose il fallait faire bouger certaines choses donc je travaille Taf Label travaille je suis en amitié avec en, association avec sama frère Ibou Dieng précalé en digital euh, sama cousin boo xamante ni tax maan précalé en production et tout euh, audiovisuel et donc j'ai pas mal d'amis qui m'aident aussi à évoluer di sama yenn projet de ay contenu yu may liggéey donc des émissions de télé yoo xamante ni dañ koy defaat di ko relancer si médias yi et en même temps dans la production musicale parce que euh, sama album mu ngi ñëw mu tudd Global Citizen et ça doit sortir normalement en novembre Taflabel euh, moo def lépp pour les vidéos et tout il y a une autre compilation qui accompagne mon album qui s'appelle euh, Inspiration qui revient à la charge de cette nouvelle tendance musicale quand même donc ñoom tamit ay y a mal de jeunes qui ñoom dañ ñu ngi ci biir ñoom tamit euh, presque seen compilation bi pare na vidéo yi ñu ngi ci pare presque lu bëri pare na ci génnaale et on est en de travailler aussi pour une série Euh, boo xamante ni dina mën a créer beneen innovation si si espace euh, audiovisuel bi donc euh, on est là on travaille en continu de la publicité on fait plein de choses yoo xamante ni tey moo ñu fi teg ñu war a liggéey ensemble le monde audiovisuel. Fata interview bi jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñu la doon seetaan ñu la mm. merci merci ñi ma doon déglu. Euh, donc euh, ak ñiy liir donc kontaan naa aussi si invitation bi euh, di bëggee bu baax a baax mu waaw moom moo waral invitation bi sax sama waay la mais en avant ça aussi di nuyu sama sama père suma xarit grand Mbagnick Souche Euh, tey su ma demee ba nekk ba am sama jabar muy Ama tamit moom joué na si rôle bu positif parce qu'il m'a toujours apprécié sans me sans me connaître personnellement après la ñu door am yenn affinité ma koy woowee président donc euh, maa ngi koy ñaanal yàlla mu yeggale yoonam soxnaam tamit euh, di sama xarit sama xarit sama xaritu goro Mame Ndiaye donc ci moom laay jaaree nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ñu doon seetaan merci pour l'invitation. voilà chers téléspectateurs et auditeurs ñi lañ leen andiloon tey ci seen émission Rewmi People ak Fata El Presidente maa leen di jox dig semaine prochaine ak beneen daanaan d'ici là portez-vous bien et restez nous fidèles.